min adalilul ka sayqin silbutaati kaanu ibadan bi taati li rabbihimu wa kana jaalan la umra ban bi minaati kaanu yo dono tar kar widdi maasi ba in minan ala min asbabil musibaati kaanu isa leylu arqa sidra sa alakin hamo sira allaya on dujunaati baafu dolan bisikrillahi qaliqi im fannawma في ليل باء بالمناجاة تجفو المناجي في ليل جنوب ومو نازل سلمى نازل سلمى نازل سلمى وليلى بالبسارات فايس ما برست ليلى ببهجتها أن أتوالوا إلى المولى بتاتي ينسون ليلى وسهدا في القيام مو مسانسين بأسكار الوايات هادس أم سكر محن نافئ samadin la sikra indul walub na fil maqalat qawmun besnatin adawam qaaro atawlo bil masaya wal karamati arkanu baytil jami il qawmi arbaatun subon yanon wilayati ci nga bokk sumtun wujowun tawilun wa uslatun anqiyoqin bil isarati bamba xasu waj ilaayu duuna waan maal usuli lati tanfiro naati min tawbatin qudduman xafira jamaawo irsaarus nin dawaa ma bil xanaati wasaadu fi kulli baadum warum maga tawa kulla sabrun kulla saati jihadu nafsi wa sukrul min xadaa'iri تركنت فاتي لا البريات طريقهم خسرة جاءت لواسما لا بد من نار أرباب الإرادات فمقصد وما ما يبدي إلى سفر من أدليل كسيق سلفتات وسعد وهو تقى من أسلا أمو ولدو إلى سير في نجاسات من سراج بسكر الله جلاله bisikrillahi jallala bisikrillahi jallala bisikrillahi jallala jallala bisikrillahi bisikrillahi jallala sirila jalala jalala jalala من المتايا بمات العليات ورفخة وهي إقوان له إمام مع الوفاء بصدق في القوات والكل من جملة السادات سورة بن يكفي المريد مريدا سقويات كل من القوم سيق kullu min alxawmu sayqun alimun wari'un minu murabin bi askarin walaati minu muraqin bi alin waxda wa abadan minu muraqin muraqin bi lisaraati kullu xadirul بدواي القلوب من يكفي المريدنا وسقوات كل كريم تقي سودا وسقات yudi nasihata fi kullal bariyati yano bi taxwan usosa nafsi jumlatiha yawi ulo minal mawla saniyati yuti tariqata ahlillahi waadi atin waliatan lilmuttadina jamian lilfiyodati kullulo imamun yarqa bi ya abadan ila asisan murisan silbotati ya raqafa ya bi aynil qalbi sairatan kama isa yuduma tatal akenati yawidu ya an ka daw i samso ay suna ya sabi kulla sa sisi sinarati yen moo anil xalbi sëñ Bamba nee na sëñ Bamba nee na gaa yooyu gaa yi yàlla yooyu boo defee dara boo defee dara ba yaakaar ne ñoom xamuñu ko nee na boo ñëwee dañ naan jàkk ci jëf jooju nga jëf sëñ Moussa Jaxate mii ci ñooñu la bokk sëñ Moussa mii ci ñooñu la bokk nanuy bàyyi xel bu baax nan koy bàyyi xel tele laa jàkkaar lool nan koy bàyyi xel bu baax a baax te di ko ñaanloo te di ko bett nan koy bett nan koy bett bu baax a baax a baax ki ki kii ku ko bett bu woowee Sëñ Tuubaa Sëñ Tuubaa ñëw barki Seexul Xaddim dama ko wax ni ko dama ko wax ni ko man ku bëgg xaalis laa damay lijjanti xaalis dama koy lijjanti sëriñ su bari dama fay dem damay lijjanti xaalis waaye yow de bëgguma sa xaalis sànni ma lor rek barki sëriñ Touba Mbacké mi ngi nii bu mu ay jàngam sax duma bëgg sax di ko tàggu ndax dama koo xam damaa am lu ma xam ci moom bu wéré wéré wéré wér lu mu bëgg siñ Touba da koy def lu mu bëgg Serigne Touba da koy def waaw te diir ba ma àndeek moom ba léegi réccuwuma ko ca kanam laa jëm yaa raqafa yaa bi ayni alxalbi saayiratan kama yusaayidu ma taftal akinaati yawidu yaa an ka daw i ay suna ya sabi kulla saa sinsi sinaraati yaqibu an kulli kawnin ilu kawwina saa nooran lasibun wasirin min quyoobaati yanmuani alxalbi raynan xajudan su ma almaqasila an sawbi najasaati أولئك القوم لا يخشى جليسهم إذ يسبون المريدين سعادات توبا توبا أي ما قالن سيرين توبا توبا توبا توبا أي ما قالن سيرين توبا توبا لعبد المريد صادق لهم بخدمة أو بحب أو ديات سيان سواجقة سكر بدوب جاي Cheikh Moustapha Jaxate borom tawfeex sa cër bi dub jay neenuk neen du mel sa cër bi dub jayi se musawa se musawa nenung nen du mel ni alaaji falilu sa sama boyul te ma ñaaw lu ñor mu jebbal baayam ci réew